dem voyage ah mhm. Mhm. ànd ak euh, sa xarit di retourner waat bi ngay retourner voyage dem bitim réew quoi bitim réew bi muy retourner voyage boobu dog na ba pare diggante dëkk ba muy jógee ak Sénégal trois heures de temps la mais boobu jour boobu nee na nanguwu ko woon boole ci jour yi mu waru a woor nee na loolu lan la ci lislaam wax vingt une heures dagan na vingt une heures la départ wàcc ci une heure du matin fii. waaw dagan. no vingt une heures après ndogu après ndogu la départ moom moom bi mu xëyee suba teel dafa def ci xelam ni tey du woor. non da doon tukki. léegi yaa ngi wax ne tukki bi dafa tombé ci diggante ñaari yi fii woor passé na fële woor jotagul. non non loolu nga wax. dëkk une heure de temps la ñu rawante. Mhm. Euh, bi ñu ndogoo ci dëkk ba ba pare. ci la am vol jël vol bi ñëw Sénégal wàcc Sénégal une heure du matin. Mhm. léegi diggante boobu xam nga kenn du woor diggante une vingt une ak une heure du matin. Mhm. léegi moom bi mu xëyee suba teel moom bi mu xëyee suba teel ci bis bi nga xamante ne ci la war a voyage yi dafa def ci boppam ni tey. warul woor parce moom laa la wax moom laa lay wax ñoo nekk benn wax maag yow. ma ne la ah mu ngi laajte ñaari waxtu yi dafa tombé ci heure bu oor amul. ok moom laa lay wax parce que fii dog neen fële xëddaguñ benn heure la ñu rawante donc moom ci guddi gi la war a dem. Mhm. bëccëg bi mën naa or ba ndogu. te mhm. fekk vol bi départ mais warul nag moom. waaw moom laa lay expliqué dama maanaam question bi dafa un peu compliqué parce que déggoo wolof ñiy déglu leeral leeralal li nga laaj. d'accord maanaam si gàttal. yaa ngi laajte koo xam ne heure bi muy tukki fa mu départ ba fa muy yegg diggante boobu kenn moo waru caa woor te balaa muy départ moom wóorul lii nga laaj xam nga lii moo gën a gàtt mais ni nga ko guddi dafa gudd daal. d'accord beneen question bi. man ñaar ñi dama leen. tontóoguma di ah, tontóoguma nga ne ma beneen question waa léegi tontu naa lu ma tontu. lan la bisimilah bisimilah ngi jégalu ñu ngi jégalu sëñ bi. xam nga kii moom may wooyee Cheikh Diomaye ma mer deseeg yow ci kër gi yow mënoo maa dégg. ñoo ngi jégalu ñoo ngi jégalu Cheikh bi. am nga maanaam léegi. kooku. woor wàcc na ko. waaye su wooroon nit am tiyaaboog oor. parce que mën naa am su wooree dafay lompoñ pour waajal jotaay ba mu war a tukki. parce que mu ngi war a dugg avion dafa war a toog deux de temps avant loolu. peut-être su wooree li mu war a def yëpp mënu koo def te waajtaayu tukki ci tukki la bokk boo tukkee yegg si it ci tukki mi la bokk moo tax ku tukki ñetti fan doo julli lu mat da ngay wàññi julli waajtaayu tukki moo gën a métti tukki roñ sa valise peese dugg aéroport jàll ligne bi jàll nangam nangam mm. yooyu yëpp dafa métti kon kooku woor wàcc na ko waaye su ko wooroon it mu gën boobu leer na indil ma beneen question bi. leer na mais yow soo ko yow ban lomotif ngay wax noonu ah. soo ko doo stress mu ne la waaw mu ne bu ñu bu waxtaanu neex bañ fàtte lomotif bi. lomotif ban ak bu kan. ah léegi lomotif bi ci kanam lañ ci wax man xam naa lomotif bi. waaw ah, ok. waaw appel bi ah, vidéo bi sax mën nañ ko dugal fii parce que jotaay bi jotaay bi ñëpp amul problème. Hmm. waaw man. waaw ah. yor naa lomotif bi mën naa koo dugal. xaj na fi. mais grave léegi cheikh bi. Ah, ah, nee na jamono aadama ah, lool tafullah. ci wax yeggalil yeggalil. non non mais non mais mais xaaral man dinaa ci wax dama bëgg a expliquer ne. Mhm. ku sa jëkkër wane bajo ki koy ba siiw ba am ci teranga bu ñu wanee sa bajo bor fay. bu ñu wanee sa bajoo jabar. bor fay. ah ok. sama yoon parce que moom dafa wanee koy ba génnee koy wan ko àdduna. mu hmm. takk jabar ñu wane la motifam bu dee am na jaarama wàcc na loolu problème nekku ci parce que ku ne la ngay liggéey nga bëgg ñu fay la ko. man bëgg naa ah, suma doom bu màggee ëllëg di waxtaan ci kooy ak bajo parce que baayam ci lay liggéey. ku bokk ci natt suma doom bu màggee wax ci. ku bokk ci natt kooy ak bajo moom ci lool ngay dégg. donc loolu loolu moom loolu moom waxal ñu soko na ko. loolu du hmm. loolu moom du du actualité loolu du dara moom. c'est normal. du hmm. information. Ah, léegi beneen ah wane neen le indi ma beneen question Pape Brosse. beneen bi nee na euh, du moom moo ko posé mais dafa am ku ko posé démb dafa ni dafa tëdd ci lal bi di nelaw tëddaale ak gelam dafa tëdd ci lal bi di nelaw tëddaale ak gelam mhm. gelam summi ko tëdde ko te yeewuwul mu yeewu yaag ndaw si doon woote bu ngeen bokkul dina ma jaaxal. léegi moom ci biir nelaw bi non mais mbës. ci biir nelaw bi dama laa yàgg bëgg te ba pare mu daanu ci biir nelaw bi continuer question bi. kii ba ma koy bëgg yëgu ko. waaw déglu ma <laughs> question bi dee na mbës. Uh-huh. mbës question bi dafa leer. waaw. dafa nii dafa tëdd di nelaw moom dafa mën a nelaw moom bu tëddoon ci boîte nii ñuy rë ñuy tëgg boîte bi sax moom du yeewu. du yeewu. nee na mu tëdd ci néeg bi ak gel bi. gel bi mm-hmm. tëddee ko. sumee ko ba tëddee ko euh, mu yeewu nee na na ko ba daanu mu yeewu gel bi ni ko euh, démb def nañu rapport. Mm-hmm. mu ni ko du dëgg. defuñu nu mu ni ko def nañu <laughs> rapport. mu def ko def nañu rapport. mu insister ba ni ko sax finalement éjaculé nga léegi nag loolu dafay laaj moom ba xam am na ci bàkkaar wala déet benn. Hmm. ndax jour boobu da doon sangu ay saafara. da doon <laughs> déglu bee métti rek maa ngi déglu de. voilà léegi léegi jour boobu da doon sangu ay saafara. mais xamul ba xam. saafara yi dafa toj ak gàllaaj ak euh, euh, li mu def te yëgu ko deuxièmement nee na est-ce que am na ci bàkkaar sëñ bi waaw sëñ bi xam nga man dama yàgg topp topp Padros mhm. émission am yëpp yàgg naa ko topp mais Padros ndekete li muy liggéey di ñu wan la professionnel yëpp dañoo nëbb boppam. non kii dañoo nëbb boppam. mu nekk nii. gis nga TikTok daa mën lu ne live live TikTok day génn sa vraie facette. barke maa ngi xoolaat suma ñaw bi ndeke dafa rafet. mais koy waxee sëñ bi i taqu la taqu la. mais boo koy tontu mooy. waaw. am benn feebar boo xam ne su la dalee sooy nelaw doo yëg dara. Mhm. am na ku tëdd di nelaw yàlla ji taw ci kawam ba sebeti te yëgul ko mu ngi nelaw. <coughs> am na si. <coughs> loolu feebar la. mais nag bu ca nelaw bokkee. question dafay am. dana mën a koddal wala du koddal parce que mu ngi nelaw te yëgul hmm. su boobaa dina koddal xel mooy nelaw waaye xol du nelaw. Hmm. saa yu xol arrêté rek day am na. te xol bi mooy pompe cinq litaru deret ci jëmm ji. koy ta koy taxawloo bu ko raayee ba siddit yi yëngatu waajaa ngay nelaw koy ba mën naa jug ta borom a ngi nelaw xam-xam piir laay looloo waral nag ngay nelaw yow mi dara jotul nga eewu fekk ko dal nga kon nit mën na nelaw ñu raay ko màccal ko mu koddal ñu katt ko ba mu daanu ci biir nelaw yi te yëgul c'est possible mm-hmm. par exemple tey jamono bi ngay gént di nelaw bay daanu yaa ngi doon laalante yaa ngi ci action mais yow yaa ngi nelaw mm-hmm. te koddal nga te yaa ngi nelaw. nelaw la maanaam loo ci wax ñu ñu téye. maanaam boor bi nelaw ci yaram ak boor bi koddal bokkuñu mission ci jëmm ji. Mm-hmm. boor bi nelaw ak boor bi koddal bokkuñu. Mm-hmm. donc laajte padros bi c'est possible islamiquement te islam lépp la tere su boobaa waa ji am na nelaw am na daanu te njaalowut amut bàkkaar parce que yëgut ko ah. yëgul ko da déglul wax daf doon nelaw. waaw ci biir nelaw yi gelam futti ko. Mhm. yégu ko mu maccal ko yëgul ko mu katti ko yëgul ko ba mu daanu te yëgul ko bu yeewoo islam toggut ko njaalo toggut ko bàkkaar te am na daan waaw waaye nag question bi nan tey di laajte mooy ndax yëg na daanu ko yëgu ko. kon kee new ci. yëgu ko. am na am na la njaalowul. waaw am na foon. Ah, am na macc am na am na katt am na daanu amul bàkkaar cum ah, ah, waaye lool lool na may dal waay waa léegi moom bu yeewoo ñu wax ko ni ko def nga nangam ba xam ko ni xam ni carrément finalement def na ko yoonam nekku ci parce que yëgut ko ba koy dem mu ngi mel ni ma doon ak yow nelaw doxoon nga ne ma sëñ bi doxoon nga bi ngay nelaw dama doon nelaw yëgu ma ko. ok yëgoo ko islam dafa civilisé moo tax ko jàpp nelaw ñu ne la jàppaatal. doxoon nga saw nga sawoo da ngay jàppaat parce que xamoo woon ci yan circonstance nga nekkoon xamoo ko woon maanaam diine ju leer leen am lépp la traité moo tax nag yonentu bi mu bëggee ñu dégg diine mu ne laa xayaa fi diine diine amul kersa sooy waxal rek mu leer parce que nit ki bu la déggee rek day mën a comprendre. d'accord. Mhm. léegi jeex na wala man daanu am na daanu njaalawul ba pare am na daanu njaalawul ba pare euh, amul bàkkaar d'accord maintenant troisième question bi. macha allah macha allah. Mhm. troisième mën na ñëw. na ñëwal ñëwal. waaw waaw na bi nee na ci biir weeru koor gi yëpp moom ak gelam ñooy tëdd waaye defu ko dara des fois des fois mais très rarement ñu flirter mais du yëg dara génn ci moom ci biir weeru koor gi. gel mais gel la gel. gelam la. ñooy fanaan ban heure leen koy def. ban heure leen koy def. yow gel gelam la nga ne ban heure lañ koy def ban heure leen koy def. non guddi gi guddi gi ñooy fanaan tous les jours. sëñ bi gelam la wax ñaar moo am. waaw ñaar moo am gelam la. gelam waaw ko nga dégg ko. léegi problème bi parce que gelam la. laa takkara laa takkara bu laa takkara bu loo bëgg a tontu sa xalaat wala diine diine ngay xalaat wala. ñëwal ñëwal mais sa taalibe bi yaa ko dugal xam-xam yaa ko soog xam-xam. waxal. yow rek démb tontu fi yu bëri yoo xam ne yaa ko waroon tontu. barke rasulullah. maanaam li ma bëgg a xam li ma bëgg a ñëw xam mooy. Hmm. weeru koor dafa am koor am. Mm-hmm. koor mu ngi commencé fajar ba timis lépp loo ca def lu defut sax koor gi dafay yàqu. waaye weeru koor fañ séentoo weer wala ba fañ koy séentuwante muy dem ñu war a julli éet léegi nag su paasee jamono koor gi sa koor yàquwut waaye loo def ci weer wi yàq na sa weer. Mm. weeru koor gu nangu ak koor gu nangu du benn. expliquez nous clairement maanaam. diggante six heures du matin ba dix neuf heures. non du ma joxe na non non non du parce que am na foo xam ne trois heures la ñuy dog maanaam li islam waxul heure. jant génte ba so mbës mm-hmm. laajuma la mbës doo noppi. Mm-hmm. mbës lan la ku la yàq. mbës waroo woon waroo woon wax kii de waroo woon wax. Cheikh ma Diomaye waaw ok maanaam fi jant bi di génnee ci dëkk ba nga nekk. Hmm. ba fi muy delloo mooy koor. biir hmm. bi loo ci def lu defwul sa koor gi yàqu na. koor gu yàqu ak weeru koor du benn weeru koor weer la mooy fi ñu séntoo weer ba ba ne gis neen ko ak fañ koy séntuwaatee ba mu ñëw loolooy weeru koor moo tax jigéen dina am koor te du am weeru koor ndax day gis régal góor mën na feebar am koor te amul weeru koor léegi nag bu la yàlla dimbalee nga koor min fi mu commencé ba fa mujjee nga génnee sa murum koor te yàlla nangu ko wa ramadaana ila ramadaana ba beneen weeru koor loo def du bàkkaar wa ramadaana yàlla dalay baal yonantoo ko wax weeru ah. koor boo woor yàlla nangu ko waaw weeru koor boo woor ba yàlla nangu ko nga génne sa murum koor bañ tëj ko signé ko ne weeru koor validé ba beneen weeru koor loo def du bàkkaar yàlla dalay baal nga dem julli ji ajjuma yàlla nangu la sa ajjuma ba beneen ajjuma loo def du bàkkaar wa jumua ila jumua wa jumua ila jumua wa ramadaana ila ramadaana wa ramadaana ila ramadaana d'accord lii yonantoo maintenant maintenant moom moom ci guddi gi ci guddi gi lay jëflanteeg copine am dinañ fóonante dinañ def lépp mais duñu def rapport et que duñu yëg dara nee na fois ñu tëdd donc benn lal nelawandoo ba fajar nee loolu bàkkaar la wala du bàkkaar. bu bu bàkkaar la laa taqaara. benn est-ce que tamit <laughs> nangul nañ ko ci kooram wala nangul nañ ko ci nangul nañ ko ci kooram. Elzo Gueye. Elzo Gueye. sëñ mooy sa premier nii Elzo. allez-y tontu. lan mooy question bi baal ma. non dama ni. Uh-huh. nee na ci guddi gi. lu ne la ñuy mhm. jëflante ñoom ñaar mais du ñu def rapport. Mhm. dinañu fóonante dinañu def yëpp mais moom du yëg dara. Mhm. ba dara di jëm ci moom xale bu jigéen bi la même mais dinañu fóonante dinañ kale dinañ def lépp. dafay laajte am na bàkkaar wala day laajte day yàq na kooram lan mooy. am na bakkaar benn wala amul bàkkaar ñaareel bi mooy est-ce que yàq na kooram wala yàqul kooram. am na bàkkaar yàqul kooram. ah bon. Mhm. bakkaar bi mooy raay ak fóon waaye yàqul koor gi ndax ginnaaw timis la rafetul nag ci weeru koor gi éviter ko moo gën parce que weeru promotion nga am onze mois da ca bakkaar xanaa war ngaa muñ benn weer waaye nag yàqul kooram de parce que bu fekkoon ci biir koor gi la ko def day yàqu mais fóon bi rek yàqul koor gi de. parce que da nga préciser mu ne yëgul dara boo yëgul dara yàqoo mais bu dee da nga am intention fonante ngir am plaisir boo ko ca amee ak boo ko ca amut inama amaloon bi ni yaati sa kor ga day dagg nga woor 60 jours bu dee da ngaa ah yéene am plaisir bu dee da nga ko ci yéene daanu nga daanu woo nopp bëccëg bi. bëccëg bi mais man man man nag li ma comprendre mooy ki gel la wax waxul jabar de. waaw ci la ñuy wax. Ah. su sa jabar weeru koor dagan na ci bëccëg bi waaw. dafa dagan moom ci wekk ci koor gi la bokk da koy gën a neexal. mais gel la wax. moo tax ma ne bëccëgu weeru koor. jabar nga fóon ko ci bëccëgu weeru koor day yokk koor gi baax na. dafa war tàpp ay xott ak foofu yu sew sewaan yooyu nag. yooyu amul benn problème ndax xott yi yaay borom. ok dama bëgg sa jabar mën naa wóor ba ngoon padros nga romb ko tàpp kàpp yi nice mu féex ba togg bi dootul métti ci moom. mais bu dee gel baaxul. non gel bokkul ci lislaam moom da ko compter ba muy baax ak bon. merci beaucoup. xam nga ñaar xam nga xam nga xaara xam nga ñaar ñi ñoo gën a rafet day fekk rafet am ñaaw am. Hmm. mais du ma mun a wax padros ak bukki ku dax du compétition. gel lislaam compter wu ko. moom da ko boolewut ci dossier am dossier yi islam di rek la gel bokk ci. parce que daf ko jàpp illégal. léegi man. Mhm. question bi ma am. Mhm. nit ki ba ma ci waxee moom man tontu naa ko ndax man léegi man maa ngi sentir ni bientôt sëñ bi dina ma seexal. xam gi dugg na. waaw mais foog mu foog ma indi ko fii. ndaw si dafa am jëkkër. jëkkër ji mu ngi extérieur jëkkër ji magee na ko 18 ans. ah. te jëkkër ji ñetti jabar la mais bu ñëwee aye ci moom bu ko waree du co def cinq minutes maanaam daal pirip hmm. dip waaw pirip dip hmm. nee na nag pendant des années hmm. te moom li ko gën a neex ci sex mooy ñu koy maccal préliminaire oral mais nee na loolu sax du ci am nee na muñ na ko muñ mënatu ko muñ mu ut xalem bu baax ci koñ bi ci biir sëy bi ci biir di ko kooku di ko maccal lu am jom. Mm-hmm. mais nee na rooful roppiwul macc rek. Mm-hmm. xam nga daa bëri ñoo xam ne dañoo yaakaar ne roof ak roppi kese mooy njaalo. Mm-hmm. waa léegi loolu luñ ci wax. xam nga wax naa ma ne leen. Mm. Padros mi laa ko doon wax bari ci démb ma ne ko yàlla su duggee rek contexte day changé. mariage ci duggee atte day changé ngay lekk ak jabari jàmbur ci bool muy dagg di la tegal sax ci bàkkaar la bokk hmm. ndax considération bam lay jox yaa ngi lekk ak lekkoo di seetlu la neex ci bool bi waru ko kenn hmm. rek la war a concentrer mbëggeel mooy jëkkëram point hmm. la fait ngay nangoo wéet góor ci biir néeg fa la infidélité commencé ba ngay summeeku ci kanamam ba ngay ubbi say tànk ba koy saxal sa coppare mu koy màcc ba ngay daanu non seulement du jigéen bu am valeur balaa may ñëw ci dina du jigéen bu am valeur du ko respecté boppam moom en tant que femme du ko jox jëkkëram cëram nga door a ñëw nag ci lislaam mhm. lislaam moom daf ko àtte njaaloo parce que njaaloo ci contexte ku am jëkkër du pénétration kooy bu dugg rek. mais na hmm. fekk nga nangoo wéet góor ba koy ubbil sa tànk di ko sexal sa coppare bi loolu den koy considéré njaalo parce que suñ ko considéré wul njaalo hmm. euh, kon atte bi du wér parce que intention bi mooy ñu màccal ko mu daanu ndax jëkkëram du màcc te dafa bëgg màcc Mhm. daanu ba mu cay wuti lañuy ñuy xàcc yéegal ko ba mu sévère ñu def ko njaalo donc tey kooku dafa njaalo ci biir néegu sëyam moom mu ngi yoof moom moom mu ngi yoof moom fàttee mhm. fukki xulwaak benn fukki salaatul fàttee la war a jël moom egg na bu yàgg parce moo sexal copparetam beneen góor ci biir néegu sëy kooku moom Fatiha fukki xul ak benn fukki salaatu Fatiha. Mm-hmm. padros jigéen jooju mi ngi njaalo njaalo lay def. Mm-hmm. ndax intention ba jëf ja ak lim am jabar xam nga bul fàtte ne can waxoon naa la ko fii nit ñi naan dama réew. moo tax lislaam buñ ko waxee ni mu demee rek dañuy noppale ko problème yu bëri yu war ñëw ci kanam da koy régler dama ne la mm-hmm. can pour bajo la. la can pour bajo la moo tax mën nga am jabar te doo kat boo canul sa jabar sañoo koo kat. yow padros boo xooloon góor na ko may naa la suma doom rek jabaram la dagan na ko mais dañuy indi seeday can pour bajo bi dagan ko léegi nag jëkkër ji joxe na can kon moom moom bajo bi bajo bi jàmbur loo koy joxee ñu koy màcc. dëgg dëgg. kon bajo tooñ nga jàpp astafirla astafirla astafirla mu ni moom woon ne. day njaaloo nee na ma nag bis ki moment boobu mu xam ni njaaloo la bàyyi na ko. man loolu day wax de xam nga ne dangay njaaloo waaye mu ci xontu ne mu lu ci lislaam wax ma ne ko ma ne ko lislaam rey na mu nga yoof mu nga yoof fàttee fukki xulu benn fukki salaatul faatiha lislaam rey na la rey na la léegi um, rey na la ci den ci joxe titre foncé titre foncé ba mhm. mooy can bi nga moom kër gi xam nga suuf kenn du ko jënd waaye di nga mm. joxe xaalis ñu jox la titre foncier boo xam ne fii yaa ko moom sa kër la. Mm-hmm. bajoo nag amul prix. Mm-hmm. waaye nag di nga joxe ah, can goo xam ne dañ lay joxal titre foncier ne bi bajo bajo padro sa kenn bàyyi sama tur bi ngeen. ah waaw waaw waaw waaw la ñuy waxtaan xam-xam la rek. Ah, ah, nga war koo joxe joxe exemple ci moom. samay ak samay ñu ngi ci live bi. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. ok kilifa la nag. yow du sa kilifa mais kilifa la. mais takk na jabar takk na takk na jabar. takk na waaw takkee can laaj leen ko can nga pour lan la Padros lu tax nga can. xaw hmm. waa léegi can bi la pour bajo bi la. jabar ji mooy waxtaan beeg bëggante bi. mais can gi moom bajo bi rek la concerné fu mu nekk nii comme gisagu leen consommé gu leen. bu tasoon da delloo can gi. ay waay baal joxe exemple. ki ki ma ok léegi mbës suma taalibe la moom. Ah, sëñ bi mbër da da ngay delloo exemple. sëñ non du ma kilifa mais waaye sëñ bi da lay jël pour jàngale. ok sa bopp jël ma jël ma exemple. mbës taalibe la. mbës léegi am jabar. Hmm. buñ la mayee jabar sa jabar la mais boo canu doo ko yow sama baja jabar nga nar tudd fii ok. <laughs> Ah. damay jàngale te yow nga ma lay jël exemple. vas-y nangu nga wala nangoo. nangu naa lépp ci diina ji. Hmm. ok léegi boo xasee ba can can googu pour bajo bi képp la. Mhm. bokkut ak leneen xam nga am na waru gar am na may gu njëkk am na can mhm. can mooy lislaam mhm. can mooy lislaam léegi nag bi nga canee can googu pour bajo bi képp la moo tax yëfi non sens yi Sénégal def can sa jawra pare ñu ne la jox guñ ko jabram da koo sàcc Sadio Mané sàcc na xale bi bi ko Sadio Mané canee la moom bajo bi Mhm. fu ko neex na ko yóbbu tëddee ko. su jabar ja nangoo mu nangu. mais mais lu suma yoon. dafa takk ñu ne mhm. sàcc na jabaram nooy nooy joxe mbir pour titre fonce moom ko bari ñu ne sàcc nga sa alal c'est c'est mhm. faux. non sàcc bi bu amee mooy que jabar balaa moo dem dañ koy préparer dañ koy waajal. lii nag mooy caaxaan moom laa leen ne aada képp la waaye du diine bi Sadio joxe can nga bañ nangul ko ko. la ko dagan. d'accord boobu Bajo Bajo saajo la fu ko neex lay yóbbu nu ko neex lay defee moo tax moom bi mu xamee diine dafa jël jabaram rek yóbbu. ok ok bon am na ñu bëri ñu may wax ni ma am nañu question donc bu fekkee am ngeen question mën ngeen ko bind fii man dinaa ko lire jotali ko sëñ bi bu fekkee mun ngeen ko <clears throat> envoyé wala ngeen di vocal da ngeen koy vocal ci numéro bi nga xam ne madame Sarr dina ko affiché léegi léegi ci ci live bi ngeen yónnee ko directement. donc mbës nag moo jël déglu vocal boobu directement euh, euh, euh, jottali ko sëriñ bi mais jottali ko Cheikh Ahmed man du sama sëriñ sëriñ mbës la hmm. voilà donc yéen ñi am question yëpp bind leen ko wala ngeen yónnee directement mbës ci numéro téléphone bi mbës wax leen numéro bi Padros ndaw si bind na ma léegi message nee na ma mbës kon man maa ngi baax ya ku nekk baax ya baax ya dafa sori moom na seen armel bu ko gën a jege rek <laughs> borom question dem ba day compliqué. kon ku mooy yàlla faatu nga. yow de boo mooyee yàlla faatu nga dafa dafa laaj. lan la ko lan mooy ak. même bés may ma pardon nga ne. non bu bu ci insister nag sëñ bi loolu. insister ma damay laajte pour xam bi laaj du ma insister. Ah, nga ne pardon nga ne. madame Sarr nee na plus 34 60. Mbës continue. plus 34. 603. 14 16 48. sëñ bi damaa am gan bu am lum la bëgg a wax. ayca dëgg mu bëgg a leeral mu ne. mais salaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam. ah sama sëriñ ziar naa la de. eh sëriñ du peuple baa ngi les maras du peuple <laughs> yaa xew de. <laughs> <laughs> bul ma daaj nga quoi. Padros bilaay yaa xew li ma lay wax entre man ak yow. dégg nga Padros naa la Padros mais sëriñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax. jantal Mara. waaw naka moom. maa ngi lay fay bu baax a baax. waa sëriñ Bada da ngay lekk nii wala da lekk ba pare sa sakkar mi lan la nii. non damay reer nii damay reer damay reer. ak gémmiñ gu niin gi. mbët loo doon wax nga ni. dama reer man ak yow sama sëriñ moo foofu. Mm-hmm. nee na sëñ Bada boo xew dégg keroog sa live la ma ko wax yaa ngi koy dégg. pourtant pourtant pourtant Cheikh Ahmed nag dafa dafa moom dafa direct moom dëgg rek lay wax. non mais sëñ Bada may ma sama rek lii ak mbës yow keroog sëñ Bada maa ko jël mu ne ma. waa léegi sëñ Bada. mu ne loolu la wax. li sëñ Bada wax yow. nii nga koy waxee naan boo xew gëm nga ko non ma ñëw rek même ma ñëw. daf la ne sa sëriñ dafa xeewi hmm. wax na ba génn réew mi maa fi yor àndalaa buri maa xew waaw ma ñëw ci live fekk ko fa dëggal ko na ko yaa xew keroog sa kanam mu ngi toog maa ngi ne yow moom gëm na ni moo xam xew mais yow bi nga koy wax naan kaan yaa xew est-ce que gëm nga ni moom moo xew non sama solo mais li mu wax lay ah, ok est ce que xam nga ne Cheikh Ahmed ku ma bëgg la de. ma xam loolu. bi ma ko seetee këram. daf ma téye wallaay la Azib di ma conseillé ne ma sëñ Bada noonu waa boobu am na ay seede ñu ngi toog Pa Aziz fa ay dara fa lëx la mu ne ma yow am nga charisme am nga lépp te incha allah bi di nga dem nii la ma ko waxee laaj ko. macha allah eh, kii nu mu barka alxuraanul karim sori baa sori baa pour nga yéeg foog nga taal live ba pare fii yaakaar naa maximum quatre personnes rek la mën a jël mënul jël. kan mooy sori baa ak lu mu fii def. yow baal sori baa. damay laaj jàpp ma ko de. dama ne kan mooy sori baa ak lu mu fii def lii rek laa laaj. c'est pas méchant. Eh, xam nga sori baa yow l'international sori baa. waaw mooy kan wax leen ma rek. kii chanteur. kii fu mu fekk sori baa nii la koy def fu mu fekk dem ba gisee nii la koy def. ak kan non kan mooy sori baa. Thierry Marta. Sori Ba de dégg naa dégg naa moo demoon fële soirée Wally Seck bi doon battre faux billets yi. eh bàyyil tooñ Bada. Ah, gis naa mu da xaw ma lu. dama ko dégg dama ko dégg. xaalis la doon baatare xaalis bu lew. mais Padre Rose nag wuy ma. yow jaaxalu la jaaxalu mu baatare ba wàcc te jëlul mikro no en fait man loolu maa ko fekkee ci mm-hmm. boobu maa ngi taxaw. Mm-hmm. Wally di ko way. mu sañ lu lu lu baax dafa yéeg dafa mm-hmm. way. bi mu bëggee way jabar ji ñëw di baatere Wally Seck bi mu baatere Wally Seck Wally Seck ni ko déedéet taxawal man tey man maa lay teral parce que yow yaay sunu jabar baatere wul suri baade jabar ji la doon baatere ni ko hmm. tey man maa lay teral yow yaay sunu jabar ci la jëlee xaalis bi di baatere Rimarta suri baa tamit génn ci poosam di baatere Rimarta mais ba léegi joxuñu Wally xaalis suri baa Rimarta li mu jotoon tàmbali di joxe Wally da ko delloo <clears throat> may ko macha allah suñu jabar nga dañ lay teral. info sûr. voilà maa ko <laughs> eh, sëñ Bada. ñu dalal la ah. ma ne ko ñu dalal la bismillah. waaw non dama ñëw. ah waaw na benn bu fi nekk ah. Mhm. Mhm. Euh, non non ba sëñ Bada sëñ Euh, waaw. Elzo dafa posé question nee na. Mhm. ñu yónni la ngay takki jabar. kañ lay takkloo jabar. ka la yónni indaalewul carte di am wala joxu la carte d'identité am pour ñu takk jabar. moom mu jël carte d'identité am takkal na ci jabar. mais est-ce que loolu am na ci. Euh, am na ci kii. ok Ramatulaay am na ci euh, yoon wala am na ci cest à am na ci cër quoi ci jabar ji. non non non carte bokkul ci sartay sëy ci lislaam Rama kii ma ko. ok eh, whatsapp ma ko s'il te plaît. moo ko ci amu ci waaw ko ci de. d'accord. am yeneen question mais damay bàyyi kii ñëw. Hmm. léegi